ñëw na njaari 1912 fii ci kër gu mag moom fa ñëw 1913 ginnaaw bi nag ci la dem ba am autorisation tabax jumaa ju mag joo xam ne ba mu ko tabax ci résidence surveillée la nekk te loolu di mandargaal maanaam jeex takk gi nga xam ne Serigne Touba jeex na ko ci yàlla ak yonent bi nga xam ne li gën a mandargaal maanaam taxawaayu suñu borom ci kaw suuf mooy jumaa te loolu nag la tabax njaarim ci jamono joo xam ne ay jafe-jafe yu mag a mag a mag am na ci léegi photo yooyu nag te mu demoon tugal mu yàgg lool wax dëgg yàlla suñu borom def ci tawféex yoo xam ne ay mbokk taalibe dox nañ ko ba indiwaat photo yi fii ci musée des civilisations noires loolu nag am leneen lu mu ci ñun muy taxawal ay ayubés yoo xam ne dañuy teg fii photo bi mbokku taalibe yi yëpp ak mbokku jullit yi ak sénégalais ak bépp àdduna ndax Sëñ Tuubaa maanaam ñëpp ñoo ko bokk ñu ñëw fii ci musée de civilisations noires gis photo yi waaye nag amaat ci leneen du ci xewaat muy sëñ moom mun Mountakha dañoo jot ndigal ci moom ngir taxawal kërug barkeelu ngir photo yooyu nag ci këru maanaam barkeelu googu nga xam ne mbooloom bagage yi Serigne yi y euh, li nga xam ne def na ko njaareem ak bagage yi njaareem yëpp ak yu Touba yi yëpp ñu dajale ko ci ak kër nga xam ne kërug barkeelu lay nekk képp ko amati bëgg jeexital ci Serigne fa demee di nga ko fekk ci ñaar fan ba juróomi fan ci euh, musée des civilisations noires mais ci juróom-benneelu fan ci King Fahd ngir waxtaanee maanaam euh, jeexitalu Serigne Touba ci kaw suuf wasalaamaaleykum wa rahmatullah.